xanaa di loolu démb journal Khalifa Ababacar Ndiaye lu wax ci commission bi. xibaar bu mujj laata ñooy tëj kuréel gi yor wàllu weeru koor gi di xam ne nag tàngoor gu metti gi nga xam ne moom lañ nemmeeku jamono ji suba nag bu tisbaar jotee rek képp koo xam ne koor gi sonal na la ci tàngoor bi mën nga dog luy dog ab xibaar goo xam ne nag dina neex lool li nga xam ne ñooy njóobeen yi mbokk yi li lañ leen indiloon ci ay xibaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi. nga maa la wax loolu. kon de kii yàq la sama koor. ah Sénégal léegi loolu la ko yàq de chaque jour nga def ñuy tàgg nit ñi te deewuñu loolu dong la rek poisson d'avril bi eh, ko def. ah loolu yàq Sénégal léegi. mais loolu baaxul. baaxul. Ah. ci koor gi. amaatali lan. ah moom xaw naa neex di. déet déet déet poisson d'avril baaxul léegi tam. léegi xam nga nu muy def. Hmm. tegal mburu mi ma wax la li lislaam wax mooy sa bés bi moom dañ koy continuer ah. léegi bu ñu waree ba ci ëllëg sax waaw nga fay ko jërëjëf ay waay jaxatu sama turandoo bi yaa ngi nii maa la bëgg kenn du yow